Laye Seydina Issa Laye notre vénéré guide conseiller accompagnant dans cette noble mission qu'on est en de remplir au nom et pour le compte de Cambérène Madame le maire de la commune de Golfe Sud chers collègues Monsieur le Président de la Fondation Forum, je peux par notre champion Idrissa Gana Gueye et le secrétaire général pour le saluer. Madame le principal du CR, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, adjoints et conseillers municipaux de la commune de Cambérène, Mesdames, Messieurs les enseignants, le corps enseignant et le personnel administratif du CM. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, et titres, chers invités, chers élèves, nous sommes aujourd'hui honorés de recevoir notre frère, notre fils, parce que je peux dire, parler au nom des anciens de Cambérène, je peux nommer l'international Idrissa ganne Gueye, illustre joueur, défenseur des couleurs de l'équipe nationale de football. pour procéder à l'inauguration de la salle informatique d'un coût de plus de 10 millions de francs pour permettre aux élèves, aux apprenants de Cambérène en général, de pouvoir toucher l'outil sans lequel on entre dans le lot des analphabètes du troisième millénaire. Chers frères, Idrissa en intervenant dans la commune de Cambérène, vous avez eu la délicatesse, l'intelligence d'associer l'équipe municipale durant tout le processus. Cambérène est fier de cela. Vous avez préféré passer par la grande porte et ceci démontre votre attachement au professionnalisme, mais ceci aussi démontre votre attachement aux valeurs de la République. Nous vous en sommes reconnaissants. votre engagement en faveur de l'éducation, de la santé, de la protection de l'enfance est un signe de votre patriotisme magnifié partout dans le Sénégal. Cette action que vous êtes en train d'accomplir à Cambérène n'est pas la seule. On vous a vu ailleurs dans le Sénégal poser des actes dans le secteur de la santé, Pas plus tard que la semaine passée et cette semaine, on vous a vu vers HLM, vers d'autres communes du Sénégal pour apporter votre contribution à la construction de l'édifice Sénégal sur le plan humanitaire et dans le milieu social. Vos dons du partage et de la solidarité envers nos concitoyens doivent être donnés, doivent être cités en exemple pour inspirer vos coéquipiers au niveau de l'équipe nationale, mais pour inspirer au-delà l'ensemble des fils et des filles de cette nation sénégalaise. Quant à nous, à Camberen, Idrissa, nous, après vous avoir remercié du fond du cœur, nous souhaiterions approfondir cette collaboration, ce partenariat avec la Fondation Forum dans les domaines spécifiques de l'éducation, de la santé au profit des personnes vulnérables. Mais aussi le secteur sportif, parce que fondamentalement, le secrétaire général de l'ASC vient de le dire, Camberen connaît des performances ces dernières années, et ceci peut être illustré à travers la montée en ligue professionnelle de l'ASC Fagnon, l'ASC Camberen. Chers frères, Nous vous tendons la main. Nous souhaiterions que cette collaboration avec Forum puisse permettre d'accomplir des missions nobles dans le secteur de l'éducation. On l'a visité tout à l'heure, le CM de l'autre côté, et les écoles, et le complexe qu'on est en train de diriger. Nous en sommes aujourd'hui à la finition des gros œuvres et nous vous tendons la main pour que ensemble nous puissions équiper entièrement ce complexe. Mais nous avons fait aussi une visite au niveau du centre de santé pour décliner les faiblesses du centre et les défis qu'on doit relever, notamment à travers l'extension de ce centre de santé pour l'amener à un niveau supérieur avec l'installation d'une unité de pédiatrie et de renforcer le plateau technique pour que cette centre de santé soit une référence dans la zone. Je terminerai mon propos pour réitérer une fois de plus nos vifs remerciements et prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde, vous accorde le meilleur, chers frères. Nous souhaiterions que votre présence à l'équipe nationale de football se consolide puisque vous êtes une fierté pour Cambérène. Cette fierté, nous la sentons à chaque fois que l'équipe nationale de football joue et vous avez à chaque fois voulu être accompagné dans le public par vos frères de Cambérène à travers la dotation de maillots, le financement des déplacements jusqu'au stade. Il dit, cherchez une chose, Cambérène est fier de vous et restera pour de bon fier de vous. Je vous remercie. ma tënk kàddu yi ci wolof ñu sante yàlla julli ci yonant bi tàdd bi ñu ngi beral ziyaara suñu kilifa gi toog muy Seydina Issa Laye di teg ci moom ziyaara yooyu mu jébbal ko le khalife général des Layènes di gërëm notabilité yi nga xam ne yëpp teew nañ ci jataay bi ah ñuy sant bu baax di am mbégte dalal suñu conseil suñu collègue maire de la commune de Golf les adjoints au maire madame le principal et tout le corps enseignant maa ngi leen di encouragé bu baax ci effort yi nga xam ne ñu ngi koy def pour jàppale suñuy ndaw pour que ëllëg ñu mën a taxaw taxawe réew mi. ginnaaw nuyoo yooyu ak gërëm yooyu ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañ ci bis bi salle informatique bii nga xam ni madame la principale wax na ko njëriñ li mu am ci njàng mi kenn mënu koo natt. ndax am na proverbe buy wax naan celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique risque d'être l'analphabète du troisième millénaire moo tax suñu frère Idi amuñu sa fay gis-gis boobu nga am ci njàng mais gis-gis bi nga am ci jàppale askanu Sénégal ci fépp ci réew mi loolu ñun ñu ngi koy rafetlu en tant que frère de Cambérène di la wax ni sa teewaay ci dëkk bi sedd na suñu xol xam nañ ni sa agenda chargé na mais le fait que nga ñëw tey consacré tout un après-midi à Cambérène wane ni na ni yow daal Cambérène dëkk la boo fonk donc ñu ngi boole ñaanu kilifa yëpp di wax ni yàlla na yàlla guddal sa fan may la carrière bu particulier ci carrière u yi nga xam ne yëpp yàgg nañ yëngatu ci équipe nationale de football di la fàttali ni Cambérène heure bu Sénégal di football suñu attention yëpp ñu ko tourner vers vous parce que xam na ni da bokk ci fierté Cambérène donc ñu ngi ñaan loolu yàgg yàlla dëgëral sa fan yokk say xéewal ba projet yi nga xam ne naal nañ ko ci wàllu santé ci wàllu éducation mais ci wàllu sportu Cambérène ñu mën a ko yóbbu ci niveau bi gën a kawe yàlla nañu ko yàlla defal ci barke Baye Laye war may sëy naay saaro laay jërëjëf ah. merci